qui entretient des relations avec 15 Fof et la mafia catch catch dama len wax ngén dem top li ma wax ngén dem top dem li ma wax bref juste pour vous dire que ce qui se passe dans ce pays mérite mille et une réflexions jeunesse de mon pays vous êtes en train de jouer avec la destinée du Sénégal vous êtes en train de jouer avec le futur du Sénégal vous êtes en train de jouer et d'une manière insouciante, inconsciente. On vous fait faire des choses qui, bu on papa et suñu mais Daniel, comment se fait-il qu'au Sénégal un fils de Mamadou Sonko vient ici pour dire que Momo va sauver le Sénégal mais que gëstu ce bàyyam ba pas, fan la bokk fan la bokk et je vous dis je l'avais omis que demander à Ousmane Sonko ndax avant mom ndax il n'a pas un grand frère moment yi nga mom la wax grand frère bob paraît titre que dem na retraite sax mo nekkoon Elim Kine du temps bi papa nekkee woon ci port ba son grand frère de même père mo nekkoon Elim Kine gëstu leen ko ngeen fouiller dans l'histoire l'histoire du port de Ziguinchor donc man ndaw yi laay waxal quand quelqu'un a un combat politique mais il oppose il oppose son combat avec des idées pertinentes mais son ses idées ces lan la Macky Sall saay la Aliou Sall Diallo euh, euh, premier ministre Doudara, institution yi assemblée nationale baaxuñu nangam sangam baaxuñu et bien organisés qu'ils sont ils ont ils ont su infiltrer la presse nationale infiltrer l'armée nationale infiltrer en même temps l'administration territoriale et ça c'est une bombe à retardement qui est là et qui pèse sur les Sénégalais. On ne sait pas. On ne sait pas là où ça va mener les gens. On ne sait pas. Et moi, tout ce que je demande, c'est que les gens, si je quand je dis quelque chose, que les gens vont aller jusqu'au fond pour creuser les là. Nous devons creuser. Parce que l'intégrité du Sénégal, il va, il dépend. Mais aussi la survie de cet État-nation, il dépend mais ils sont en train de décrédibiliser l'État-nation Tasco. rompre la relation de confiance qui devait exister entre le citoyen et l'État Une fitna une xeex L'union mafia kàcc kàcc aïe, ay dañuy taal ak C'est langage it l'ol, tal saga, TAL, SAGA, SAGA, tal saga, mais ils sont en train de faire sauter les verrous ben par ben, les verrous ben par ben, et sans que les gens le cherchent. Et ça, c'est super dangereux. Guinée, États-Unis, avant le World Trade Center, du avant que les Américains se rendent compte que nous l'avons mais les djihadistes ont intégré l'armée, ont intégré l'administration, ont intégré l'aviation, intégré l'informatique. D'un ont jekku mon mën un avion ou bien une drone un drone vous moi xam drone Vous me rectifier maintenant les di di di di di manipuler ni di manipuler ba américain yi jékki-jékki gis ne avion daan na biir Trade Center avion na nous aussi c'est pareil les gens laissent faire les gens laissent faire donc gars yi di dugg di def la neex di dugg def la neex di taal di quand au Sénégal des gens civils dugg Sénégal et durant le mois de mars dernier ñaata kaar moo jugee Karabane ñaata kaar moo jugee Bignona et eh, à qui Ousmane Sonko demandait de baisser les armes dégluwaat leen discours am à qui il demandait de baisser les armes booy wax baisser les armes kay xanaa militaire yi nga war a wax rek dëdd moom moo leen ko war a wax ñan lay waxal baisser les armes ñan ñan la koy wax donc man li may wax ni ku mu ku jàpp nga ne dafay délirer bu la neexee Comment ça fait que moi je suis en train de délirer Comment ça fait que moi je suis en train de, de, de déverser mon, mon, trop plein de haine sur Ousmane Sonko Continuez à penser cela. Continuez. Mais les morts, dem len ngeen xalat ngeen dem ngeen dem Ziguinchor ñi dëgg intéressé ngeen laaj leen au temps de l'attaque de la pointe Saint-Georges papa Ousmane Sonko fan la nekkoon ak lan moo nekkoon rôle et vous comprendrez énormément de choses suma palais sama xarit buur ci documentaire bi ñu def ci li donc avant que may ñëw ci audio yi pour tàggu leen damay wax sénégalais bu nek mu jël 10 minutes de réflexion mu déglu sama vidéo dégluwaat ko dégluwaat ko mu jël 10 minutes de réflexion 1 minute de réflexion et quand je limay netti nettali ma koy nettali je sais que en Casamance il y a un homme de un homme de Soose qui ne sont pas dans cette logique et je les connais parfaitement et ah non buñ dee buñ dee cent 80 yi 80 ci li 80 yi ci li 80 des soose newuñ ci li 80 des dollars newuñ ci li ni li intéressé moy les derniers remparts de la rébellion casamançaise Salif Sadio ak sen yakar projet Pastif Ousmane Sonko et vous vous poserez des questions de savoir lan la Tigre et di def ci bir peewu Pastef lan la fay def et là vous comprendrez li ma bëgg wax lan la là vous comprendrez li ma bëgg wax lan la xam nga là vous comprenez li ma bëgg wax lan la maintenant je m'en vais bon vous vous donnez les audios ki nga xam ne moo fa waxoon ne naam dem naa fa ba mu fay dem.